alhamdulillahi alladi bi nicmatihi tatimu saalihaat wa tubaaraku lxarakaat wa tudcafu lxasanaat summa salaatu bi akmaliha maca salaami bi atamihi ala ashrafi wa akmali rusuli sayidina wa maulana muhammadin bahjatil kawni wa diyaihi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 tabaarakallaahu ba tey rek seen rajo télévision bu wal fajri mi ngi càmbar daaraay démb yi yi nga xam ne ñoo jur tey daaraay tey dem na ba ngànda ci kër suñu maam Chérif Cissé kilimaan ngànda tànn fa benn ndongo Omar Fall mu génnee ci daaraay Abdullah ibnu Mas'ud fii ci parcelle unité onze mu war ñoo jàngal aayaat yi ñu fas yéenee firi kon Cheikh Omar bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء wallahu ala kulli shay'in qadir ya ayyuha rusulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri min alladhina qalu amanna bi afwahihim walam tu'min qulubuhum wa min alladhina hadu sama'una lil kadhib للكذب سماعون لقوم, لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مودع موادعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم وإن لم تؤتوه فاحذروا فمن يريد الله فتنته فلا تملك له من الله شيئا sadaqallahu alazim tabaarakallahu jërëjëf Omar Fall ci aayaat yu am solo yi ngi ñu jàngal waaye ci njàng mu rafet mi ngi ko jàngee yal na yàlla wàccee barkeb alquran ci sa kaw yàlla wàccee ko ci say waajur wàccee ko ci sëriñ daara bi sonnee ba nga mën ñoo indil njàng mu rafet mu sell mii boo xoolee aayaat im ñu doon jàngal ci suratu maayida ba tey rek ci yaa ayyuha alladina amanu taqullaha wa butahu ilayhi alwasilata mooy aaya bu gàtt la waaye bàyyiwul dara ci diine dafa ñuy sant ñi sàkku wasila boo jëlee aaya ji dafay wane ne jaamu yàlla yëpp ñaar rekk moo ko tënk bi ci njëkk mooy góor góorlu ba bàyyi tere yi ñaareel bi mooy góor góorlu ba jëfee ndigal yi ñoom ñaar ñooñu yépp yàlla tënk ko ci ñaari baat am na yaay wala si amunu taqullaaha ittaqullaaha mooy góorgóorlu leen ba yi ma leen tere ngeen bàyyi ko waaye ba mu ne wabtaxu ilayhil wasilata mooy góorgóorlu leen ba li ma leen sant ngeen def ko yàlla nag lim santaane dafa bari ba loo góor loolu góorgóorlu mënoo def lépp mais mën nga caa def waaye lim tere moom dafa bëgg nga bàyyi lépp ndax lim digle dafa bëree bëri ba mel ni paanab soow mu ne la naan ci ay paanab soow kenn mënu koo naan waaye naan ci nag naan ci ci julli naanal ci kaasab koor naanal ci kaasab asaka naanal ci kaasab aj màkka naanal ci kaasab jàng alquran naanal ci kaasab jokk bokk demeet def ci ya man waaye lépp kenn mënu ko waaye tere moom dafa mel ni kaasab tooke dafa ne sax bu ko jege moo tax fu mu koy waxee dafa ka xuduudullaa falaa taxtaduuhaa léegi-léeg mu ne falaa taqrabuuhaa yooyu bëggul nga jege sa dara léegi nag ba mu ne yaay wala sam taqullaa wabtaxu ilayhil wasilata baatu wasila mu mu yore wasnu faila boroom xam-xam yi wuutee nañ ci waaye baat bi boo ko seetee ci alquran ñaari yoon rekk la ñëw baatab wasilatu alquran ba alquran jeex ñaari yoon la ci ñëw waaye ñaari yoon yim ci ñëw yëpp boo ko seetee yàlla da koo tinki waaye tënkut ko moo tax fi problème di amee mooy ña koy jéem a tënk soo ko bëggee tënk ne daal wasila du dara lu dul de naafila yi woor weeru koor jàng alquran daa boo ko tënkee da nga koo xatal cala du moom rek nag moo tax boo demee ci jawaahiru rasail tabaarakallaahu suñu maam Cheikh al Islam Haaji Ibrahim firi na ko firi mu rafet dafa ne wasail yépp ñett rekk la bi ci njëkk mooy topp yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ci jëfe lim ñuy indi fexe ba bàyyi lim ñuy tere wasail yépp mën a topp suñ sayduna muhammad moo ci ëpp doole moom la alquran ne qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullah mu ne bu ñaareel ba ba mu waxee topp yonantu bi rek yóbbuwaal na yonantu yëpp bañ génnee àdduna ak ba ñuy dund yëpp ku topp seen yoon doo doo sànku bu ñaareel ba mu ne mooy topp nitu yàlla wala yóbbu yàlla moom la alquran ne wa tabi sabila man anaaba ilaya xam nga man nag ismu mawsulil aqil la mooy toppal ku jëm si ci man su boobaa nag kon nitu yàlla yépp ku topp seen yoon doo sànku waaye yow nag boo ne waruñoo roy ab sëriñ waruñoo roy ab nitu yàlla déedéet ko koy da ngaa juum rek da ngaa xatal rek waaye boo toppee Seex na Ahmad Tijaani def ko muy sa wasila te nga xam ne lim lay digal yépp ci wir doom yi doo ca fekk turu baayam doo ca fekk turu yaayam doo ca fekk sax turam lépp jéggalu yàlla la jéggalu yonent maanaam julli si yonent bi la ak bàkk yàlla nga def ko ne muy nga mooy sama wasila Ah, mooy sama jàngalekat moom laay roy ndax moom moom mooy moom moom gën a xam yonent bi ni koy royee waaye waaye ku roy ku roy moom yéen su ko defee tamit wala nga man de Cheikh Oumar moom laa def muy sama wasila jàng naa rima xam bi njàngaleem doy na ma wala nga ne man de Abdul Qadir Jaylaani laa def muy sama wasila demeet imaamu Suyuti maanaam imaamul Xasaali si Ahmad Bamba Xaadimu Rasul Seydil Haaji Malik Mawlaay Haaji Abdallah demeet ponkal yu toll noona koo ca jël def ko muy sa wasila yaa ngi ci aayaab wa tabi sabila man anaaba ilaya bu ca tegu nag mu ne mooy sax ci lu baax rek di ko defandoor ak ñu baax moom la indi aaya ja mooy wasbir nafsaka maa alladina yaduuna rabbahum bilgadaati wal ashi yuriduuna wajhahu kon ñetti wasaa'il yi moom la tënk ci jawaahirul jawaahirul rasaa'il ne ñett yi rek mooy wasilatu ba ko yàlla waxee da koo da koo tinki waaye nag mu ne ñett yi boo leen jëlee moo tënkaat aaya ji rek waaye nag ñi bëgg a jël ne wasilatu daal mooy naafila rek ak woor jàng alquran waaye yooya cala waaye duhut moom rek eh, masala abdi yataqarrabu ilay bi nawaafilil xayri boobaa yooyu benn yenn yenn rek la ca su ko defee nag roy nit ku baax tamit ca la bokk roy ab yonent bi yàlla tamit ca la bokk yépp dafa bokk ci wasaa yi bi waaye problème bi yépp ma nga nekk ci ña koy yaatal ak ña koy xatal yàlla mu yaatu mii ku hegg ca moom yaatal diine ju yaatu jii ku ko dégg yaatal waaye xatal gi lépp foo ko dégg rek ñàkk a maanaam ñaar lay tegtale mooy sori yàlla ak ñàkk dégg diine kon yooyu nañ koy bàyyi wasaa'il yi dañoo bari boo demee moom ruuxul bayaan moom da koo tënk rek dafa ne wasaa'il sax benn rek la ñu ne ko ban mu ne mooy topp nitu yàlla wala yóbbu yàlla tu yàlla ko am cër xam ndigal ku ko topp foo bëgg a hegg ci yàlla da fa hegg noo bëgg a tamit da ko mel moo tax mu ne kon topp borom turuq yi gaayu yàlla yu màgg yooyu daal moom la def moom na mooy wasila kon nag euh, wasiloo nga moom la ñu yàlla sant ni kon sàkku wasila yàllaa ñu ko njëkk a sant yoona boo ko bëggee xatal ci ni mooy jëf yi rek ak yooyu dëgg la yooyee ca waaye du moom rek dafa yaatu moo tax sama borom ne yaa ayyuha alladina yéen gaa yee nga xam ne amanoo gëm nañu alquran ittaqoo na ngeen ragal laaha yàlla ragalee ko nag ci teet mboolem yim tere wa bu taxoo na ngeen sàkku alwasilata ak jot li ilay jëm ci yàlla ci jëfee mbooleem yim digal wa jaahidoo na ngeen jihaad fi sabili ci yëkkati diine yàlla ji lii de bu ngeen ci nekkee xóor na man naññi ne laallakum ko mbastale yéen tuflihu na da ngeen texe de waaye ne la si ndaa gaa nga xam ne kafaroo wéddi nañ yàlla law ànd lahum doonte nekk la aji nekk la ñeexal leen leen maa fi ar di nekk ci suuf jamihan bi muy mboole seen tabax ye alal jeeg oto yeeg xéewal gi yépp li fi nekkoon ci suuf wa misluhu ak kema maawoo mu ànd ak moom li yaftadoo ngir nañ bi bihi ca moom min azaabi yowmal qiyaama ci mbugalam yowmal qiyaama dañ ko joxe waaye maa tuqbila def nangu lef minum ca ñoom wala hum dal na seen kaw azaabun mbugal alima mooy borom ak métital maanaam bu ñu demee ëllëg waa haljaana dugg yàlla nañ ca bokk waa safara dugg safara yàlla nañ ci yàlla musal ak képp ku ñu xam ak képp ku ñu xam bu ñu jëlee nag loosmaa yi ba toog yàlla dafa bëgg dalal suñu xel dafay indi dafay xebal malaaka mu indi am xar meloom am xar ñi taxawal ko ci diggante aljana ak safara ñu ne hée yéen waa aljana ñu ne ko labayka mu ne nekk leen ci xéewal nekk leen ci teraanga dootu leen deexati dee mi doon reyee ngi nii ñii rey daal di rendi xar ma ne hée yéen waa safara ña fa nekk ne loo ñuy wooyee ñu ne ko nekk leen ci mbugal ak ci naqar ak ci coono dootu leen deexati dee mi doon rayee ngi nii ñuy rey foofa nag lañuy ñuy door a rayee dee moo tax may waxtu sur ne feeg dee deexagut ñépp dañ dee te dee moom xam na fula bi day ne balaa dee ñëpp a dee waaye soo ko ne dafa nangoo dee balaa ñeen ñee dee sañoon a mucc waaye feeg dee deexagut te dee balaa dee ñépp ay dee ba dékki jël seen loosement ya ci aljana ñu door a rey dee foofa nag la dee di door a dee gis nga xar ni mu amee cos la boo gisee ñu indi foofa xar bakkanab doom aadama biñ bëggoon a rey bakkanab xar lañ ko njotee muy yonent yàlla ibrahima bi bëggee rey yonent yàlla ismaila luñ ko jotee bakkanab xar muy wa faddaynaahu bi zibhin azimin waaye gis nga tamit xaabil ak haabil ba ñuy jaamu yàlla yàlla di seet ñoom ñaar feeñal ku jël sa jaamu yàlla ga nangu ka jaamoo woon xar lañ ko yóbboo moo tax ñuy bëgg di topp xara dafa yàgg topp nit moom lañ bëgg tey ndey saanam boo demee ba yàlla may la doom nga teeroo ko muy gan gu ñëw ñu tey rendil ko xar tural ko deret Malick ni boo ko mënee ca semaine bu njëkk ba def ko soo ko mënul deuxième semaine bi soo ko mënul nga aj ko ba ca troisième semaine ba tolloog ñaar fukki fan ak benn soo ko mënul joxeel tur gannaaw ngénte wàcce gum na la soo ah, soo njëkkee xam sa doom rendil ko xar bu la sa doom njëkkee xam gannaaw bi mu mosoo ree mu rendil boppam xar ndax yonentu nee na nit ku nekk dañ koo tay la ca gàttab ngénteem ba kon ci nga xar yàgg naa topp nit de moo tax tamit moo ko topp moo ko topp ba nit ki dugg aljana ñu indiwaat xar rendi ko muy tekki ne dund moom jeex na su ma laa yëmutu fiyaa wala yaxyaa jooja loolu lay junj bu ca gaa yi nekkee ca coono ba tamit dootuñ deeati foofa seen dee gaa yi nekk safara nag dañuy yéejow ne àdduna ak li ci biiram buñ ko amoon ak lu tollaa ni moom ak lu toll ni moom lépp ñu dagale ko dem joxe ko te mucc ci mbugal mi yàlla ne déer loolu du mën a xam te pourtant fu leen li leen leen di laaj moo gën a xoyof benn baat dong lañ leen laaj muy ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah boo ko bañee joxe da nga toll moment boo xam ne bu ñu leen dee dee da ne haa man de damaa bëggoon a joxe àdduna ak li ci biiram yépp ma joxe ko ta ta ta ma mën a sooyewu ci mbugal mi ñoom ñoom moom ne lazina kafaru law anna lahum maa fil ardi jamian wa mithluhu maahu li yaftadu bihi min azabi yawm alqiyama gis nga yàlla moo mën a jël jenn jëmm mu suyee ñetti mission xaram xaabil ma xaram xaabil ma moo moo moo moo njëkkoon a suyee digg nangu jaamu nangu jaamu yàlla ga ba loola may ko mu war a takk ndaw sax muy iqlima xar mooma moo suweewaat bi ismaila bàyyam bëggu koo rendi xar mooma lañ wàcceexaat yàlla njotee ko ca ci wa fadaynaahu bi zibin azim xar mooma tamit dernier rôle bi muy suwee mooy bu buñ duggee aljana moom la ñuy reen ci diggante aljana ak safara door koo rendi nag mu door a dee dee rek dëgg-dëggal kenn dutu ko gisati kon kenn du yàlla moo fekk moo mën a fekk lenn mu def ko muy lu bëree bëree bëree bëree bëri moo mën a fekk leen tamit mu mu mu mu mu suyee rôle yu bëree bëree bëri bari fekkeen la loolu sax dana xam ci saaba yi ñu bëri daa nga fekk saaba boo xam ne garde corps la en même temps secrétaire la ci yonantu bi garde corps yonantu bi la boo na ki ñi nga xam ne ku mosaan a sàkke ñooy dagg sa loxo naanaam ñoo yore wàllu sécurité bi ñi nga xam ne tamit ñoom ku dañoo taxaw taxawaayu euh, homme de tenue ci gendarme yi mbaa ngi nekk police yi yooyu yëpp fekk nit koo xam ne dana taxawee yu bëree bëree da ngay gis koo xam ne tamit taxawaayam tabaarakallah yàlla rek a xam ni mu toll yàlla nañu ci na boole. yàlla ne yuriduna danañu namm an yaxrujoo an yaxrujoo ñu génn mina naar ca safara waaye wa maa hum déet ñoom bi xaarijin ñu way génn minhaa ca safara duñ fa génn mukk wala hum dal na seen kaw azaabun mbugal mu sax muqiimun mu sax mbugal mu sax abadan dootuñ génnati ndax dee dee na waaye loolu la ñuy féerale ki li ci tegu nag yàllaa ngi jàngale sàcc. wassaariqu wassaariqatu gis nga sàcc maanaam culture yëpp dañ koo ñaawlu ndax jikko ju suufe la sa moromam liggéey sa moromam góor liggéey mbaa sa moromam jigéen nga ñàkk jom dem sàcc ko di ci faj say soxla loolu xam nga sax ngor nanguwut ko jikko ju baax nanguwut ko ceddo yi même bañ amagul diine sax nanguwuñ ko moo tax timit sharaaix yi fi jaar yépp dañoo utal pen ku sàcc luñ lay war a teg boo demee yonentu yàlla yuusufa sariam ba moo ci gën a tàng moom ku sàcc rek yow mi sàcc la ñuy fayee càcc ga yaw la ñuy bamax ne comme yaa sàcc lii taxawal ngi jël li nga sàcc te yow delloo la ka ka ka sàcc ko neexee dem bayloo ji la tool foo ko neex yóbbu la moo tax mu yuusufa ba muy defee plan pour bëgg a jot ci rakkam ji Banyamin dafa fexe ba jël pot potu àndaar ba dugal ko ca kiiham ba ñu ne waa ku sàkke nag mu ne man wujj def fii raxale yi foofu wa gesaawu mu fayee ko ko mu jeex kon boobu moo gën a tàng ku sàcc ku ne rek yow yaay fay ak sàcc ga bi yonent bi juddoogut ci diggante maanaam ci diggante eh, yonent yàlla Isa ak fi yonent bi di juddoo araab yi dañoo yoonaloon ñoom ci seen bopp ku sàcc ñu dagg sa loxo moo tax sàcc dagg loxo yonent bi fi la ko fekk bi yonent bi ñëwee nag charia am bi yàlla wàccee ko ci moom reconnaître loolu d' accord ko ne d' accord naa ku sàccati ku mën a doon dagg leen loxo nday joor ba waaye ñu ngi koy daggee nag ci fii ci tikku njare gi xam nga loolu bu ñu ko dagg ci yow koy wax dëgg yàlla daanaka sa solo dootul bëreeti nga taxoo gàcca googaa ba ba ngay dee ci sa biir bàmmeel ku la gis xam ne kii sàcce taxoon nga loxo ba xam nga loolu yéeme na trop loolu mën naa jàjji ba tax nit du ko defati léegi tamit te loxo bii ñu dagg ci yow ku ko dagg ci yow mi ngi la war a mi ngi la war a jotee juróom fukki gëléem boo jëloon jaasi di dagg rek mu rëcci dagg loxob jàmbur fekk tayoo ko kenn du dagg sa loxo bi mais da nga joxe juróom fukki gëléem mooy mooy mooy mooy boo daggoon nit ki baaraamam yi juróomi baaraam yëpp boo leen juróom fukki gëléem mooy njot la ndax baaraam bu ne dafay taxaw taxawaayu fukki gëléem polu baaraam bu ne ñetti gëléem lay taxawee ak ak ñetteelu xaaj ba moo tax baaraam yi yëpp a xem prix bii ak bu ndaw bee yëpp a ci am boo ci dagg fukki gilem waaye bu demee ca pol ya nag bee ci ëpp prix ndax bii nii muy baaraamam ndey bi ñaari pol rek la am boo daggee waa ji genn wàll wenn pol bi nii juróomi gilem ngay joxe waaye buy pol yi si des si baaraam yëpp ñetti gilem ngay joxe ak ñetteelu xaaj ba su waaye gis nga ko kon loxo ni mu seeree juróom fukki gilem la dox a waaye xoolal li ñuy dagg loxo lan la rubon dinaar rubon dinaar boo ko doon seet actuellement mi ngi toll ci vingt quatre mille ba vingt cinq mille yow yaa ngi bàyyeekoo ci juróom fukki gëléem boo ko doon def gëléem gu ne un million loolu juróom fukki million la juróom fukki million la son loxo bi di jar nga sàcc lu tolloog vingt quatre mille sa loxo bi euh, xaymaam wàcc prix bi wàcc prix bi di wàcc di wàcc ba xegg ci vingt quatre mille kon dëgg dëgg sàcc moo mën a moo mën a daane nit sàcc moo mën a daane lu am valeur moo tax benn yahud da koo jamee ne waaw yéen diine est-ce que juumu leen loxo ngi nii ku ko dagg juróom fukki gëléem buy suñoon xaalis juróomi téeméeri dërëm ñi ko dagg ci rubon dinaar waaye gën ne ko isul amaanati axlaaha wa arxasaha zulul xiyaanati foofu xam xikmatal baari mu ne ko ñàkk a sàcc moo taxoon loxo bi seer bay jar juróomi téeméeri dërëm ñàkk a sàcc moo taxoon mu seer bay peese juróom fukki gëléem waaye ba mu sàccee rek valeuram daanu na loxo bi mel na ni ku jabet loxo nag bu jabetee te boo bàyyee jabet bi dafay yéeg bay yegg ci yaramam bi da ngay dagg rek fi fi fi jabet bi toll balaa monte médecin médecin yi ñu ngi koy def te taxul ñi bañ la yàlla dafa laa yërëm dafa bëgg nga dund dund boo xam ne doo loru dund boo xamante ne doo lor sa mbokkam julit waaye du fi bàyyi sa loxo bi feebar continuer lor nit ñi rek te kenn du ko dagg duñ ko def moo tax mu ne kon nañ ko dagg kon gis nga sàcc baaxut moo tax sàcc lu fi yàgg la bi yonent bi ñëwee sallallahu alayhi dafa xatte sàcc nekku ku sàcc nañ dagg sa loxo benn waaye bu ñuy tuddee xayaar moo njëkk a sàcc ci saxaaba yonent bi di góor yonent bi dagg loxo ba benn soxna bu ñu tuddee muratu bintu abi sufyaan mooy ki njëkk sàcc ci jigéen yonent bi dagg loxo ba aboubacar siddiq bi mu toogee am na genn góor gu sàcc takkaay aboubacar dagg loxo ba Seydina Omar bi mu fi toogee benn góor bu ñu tuddee sumratu sàcc na Seydina Omar dagg loxo ba kon lañ doon nañ def ku sàcc ku mën a doon rek dañ dañ dañ dañ dañuy dagg sa loxo bi ñu ñëpp noonu lañ doon atte ko waaye jii jamono su fekkoon ne ku sàcc ñu dagg sa loxo ñii des sa loxo du bëri de këppkati kees yi dañoo bari fa mu gën a kawee ba ca ñu gën a suufee sàcc rek sàcc goo xam ne naa ko def ba du am trace sàcc goo xam ne danaa ko def kenn du ma mën a jàpp waaye bu yow mal xiyaamee da danga feeñ foofu lay gën a garaawee yow ma tub la sarairu la nga sàccoon lépp yàlla publier ko àdduna bi yëpp jàkkaarloog moom yonentu bi ne ah, da nga gis koo xam ne bu ñëwee dafay xenu ay nag wala mu xenu nag nag way bëmm kii ñëw xenu fas muy ñeexal kii ñëw maanaam xar wala bëy muy meem yow nag boo sàccoon ay ganaar nag ñiy sab da nga am problème boo sàccoon maanaam xaalis bi tamit xaalis bi ñu manifesté ko muy yëngatu da am problème kon lépp lu waay sàcc bu yow ma xëyaamee danga ko teewal ca kanam péncam yàlla ma foofa nag la gën a garaawee moom lay wax si nii ci wàllu sàcc sama borom nee was wasaariqu sàcc bu góor bi wasaariqatu ak sàcc bu jigéen bi faq ka on na ngeen dog aydiyahuma seen ñaari loxo ya ca ndeyjoor ya ca tikku njare ya jësa an muy fay bi ma kasabaa ca lañ faggu def naa ko man yàlla naka lan muy mbugal ne laay gu baxee koo ci yàlla wallaahu yàlla moomu mbugale asisun ku not la ci nguuram xakimun ku xereña la fa man taaba képp koo xam ne tuub na min baadi zulmihi gannaaw ak tooñam ci càcc wa aslaha mu xéwénal jëfam delloo càcc ga baax lu xaq kim sàccoon fa inna laa naka yàlla ya tuubu dana nangu tuub ax lay ci moom inna laa naka yàlla xafoorun jégale kon la rahimun ku mën a baxale la ku bëri yërmandi la gis nga alquran ki kéemaan la dafa amoon benn arabi yu jàngul sax alquran du jullit du jullit benn borom xam-xam bu mag bu ñu tuddee imaamul asma'i yu mu ngeen xam jàng alquran ci kanamam bi muy jàng mu jàng ne wassaariqu wassaariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bimaa kasab bimaa kasabaa nakaalan min allaahi wallaahu ghafurun rahim mu ne ko yàlla du waxee noonu yàq nga baat bi de mu ne ko yow da ngaa nekk jullit mu ne ko duhuma jullit gëwuma yàlla waaye waxinam nopp maanaam dafa neex ba noppa koy gën a gaaw a taataan yàq nga aaya ji de demal nga seetiwaat ko imaamul asmay li muy nekk nekk borom xam-xam ak li muy nekk nekk ku ku géejuhu gëm yàlla mu dem seeti aaya ja ba ko fekkee ndeke too moo ko yàq ndeke la fa nekkoon mooy wallaahu asisun hakim mu ne ko waaw waaw xam nga nekk mu ne ko yow xafurun rahim nga jàngoon kuy jéggale du dagg loxob sàcc ku xam yërmande du dagg loxob sàcc waaye li mu nekk ansul xakim dafa not ci nguuram moo tax mu xatte ak dagg ku not asafa xakama wa qataa kon kooku rek mu mën a dagg mais yow li nga waxoon ni yàq la de te waajee gëmul yàlla sax du jullit léeg-léeg alquran day dem ba nga xam ne nekkatul ne nopp moo koy dégg sax waaye sa xol bi moo koy mujj taataan da koy yëg léegi nag kon loolu la demee si nga sàcc gi ba mu koy wax tamit sàcc bu góor la yàlla njëkk a door a tudd sàcc bu jigéen ñett a tax sàcc yu góor yi ñoo gën a bëri sàcc yu jigéen yi ci société boo dem nag moo tax gis nga jigéen sàccam lu tumuranke la ba tey boo demoon ca marché ba sax gis bu jigéen bu sàcc boo demee foog nga nettali ko ca kër ga te dañ de jàpp nañ benn maire dafa sàcc waaye ñu nga mënoo nettali ñu sàcc ñu góor ñi dañoo bëri foo fekk nettali sàcc di ko xéem rek ñaareel jigéen la kon jigéen ñi maanaam góor ñi ñoo gën a bëri ñaareel bi tamit góor moo ëpp kartan ci mën a sàcc xam nga ñi dàqe la ngay fente léegi-léegi nga tab miir bi jigéen mënu ko moo tax kon ci ak sàcc ñenee ñett ñetteel bi tamit ji góor moo gën a ñeme moo gën a ñeme xam nga sàcc risque la risque yi mu laaj ku amul fit ñeme woo mënoo ko li góor nag gën a ñeme mën a jël yenn risques yi boole ko sàcc góor gën a bëri boole ko góor tamit gën a am kartan ci mën a tëb miir ak fente ay nit ñu koy dàqee noo tax ba muy wax sàcc mu njëkkee góor waaye ba muy wax njaalo nag foofu jigéen la njëkkee azaniyatu wasaani ndax njaalo jigéen ñi ñoo ko ëppale góor ñi te ñaareel bi jigéen rekk moo ko mën a bëgg mu sotti waaye góor bu ko bëggee du sotti góor mën naa rëbbi jigéen sooy waaye jigéen bu rëbbee góor du sooy mën naa nag rëbb góor ci góor gi du góor ñëpp ma am na góor ñoo xam ne ku leen rëbb da sooy waaye du wut góor ñëpp boo rëbbee góor goo xam ne mi ngi lay rëbb kay sooy du fa am te loolu dafa bëri yow jigéen ngi yaa ngi rëbbi góor goo xam ne yow lay rëbb foofa kay sooy du fa am te loolu dafa bari moo tax kon jigéen moo dàqa njaaloo jigéen mooy koo xam ne bu bëggee njaaloo rek mu sotti waaye bu ko góor bëggee du sotti moo tax ba ko yàllay tudd fële dafa wax maanaam euh, azaniyatu wasaani ca suratu nuur suratu nuur kon foofa foofu la waaye fàcc gi fii ci maayida góor góor la njëkkee ci wasaariqu wasaariqatu faqatahu aydiyahuma dagg gi tamit seen nday joor moom la ñuy njëkk a dagg fii ci tikku njare gi foofu lañ koy daggee waaye cey ba la ñoo dagg loxob sàcc suróot yi sarta ya lu bëree bari la ba ca njëkk ci sarta yi na fekk kiy sàcc di jullit ku dul jullit kay te ñëw xàttewu ci ñun suñu yoon nekku ca bu fekkee du wut jullit ñëw xàttewu ci ñun dañuy dagg loxo ba ñaareel ba na fekk mu am xel ab dof bu demee sàcc kenn du dagg loxo ba ñetteel bi na fekk mu mësoor bu mësoor a gu nekk ab xale kenn du dagg loxo ba dañ koy yar rek ñeenteel bi na fekk ba muy sàcc la mu sàcc matru boo dinaar mooy loo xam ne boo ko évaluer mu man vingt quatre mille vingt cinq mille waaye li nga sàcc bu manqué vingt cinq mille ci xayma wala matu ko ci xaalis kenn du dagg sa loxo bi euh, loolu mooy wax ji gën a wér donte gis nañ ci xaddis yonent bi ne yàlla rëbb na sàcckat boo xam ne day sàcc nen yàlla rëbb na sàcckat boo xam day sàcc buum ba tax na ñu ci yeneen borom xam-xam yi jàpp euh, ku mel ni Ousmane Batariyu mu ne ku sàcc lu mu tuuti tuuti tuuti dañoo war a dagg sa loxo bi moom loolu la gëm waaye imaamu Malik daa ko rut ci imaamu Saafi yu daa ko rut ñoo ne foog mat rubu dinaar même sax daa ko rut ak imaam Ali ñoom ñëpp dañ li nga sàcc foog mat rubu dinaar muy 24 kenn dagg sa loxo bi ñetteel bi tamit na fekk bi ngay yoo xam ne da xiif amuloo loo lekk lu dul nga sàcc sariya may na la nga sàcc nga dem sàcc ñam dem ca borom restaurant bu mu génn ni muy kii yoree rek di baaral xaw ma lañ koy wax su ko defee nga ti nga tibb ca ceeb ba lekk ba suur waaye da nga koy da nga koy dañ dañ dañ gàdd de da nga koy fay de dañ koy fay dañuy seet plaatu ceeb lu muy jar ñu ne 1500 ñu bind la kon demal nga liggéey saa yoo mënee nga ñëw fay ko waaye ne nag boo xiifee mën ngaa lekk rek nga ne nga jaal ko ne dégg naa ne ku xiif mën ngaa mën ngaa sàcc taxawal man damaa xiif dem sàcc waxuma loolu dangaa xiif amuloo lool lekk dara sa sufi même bu fi médd sa soon sàcc gi sës fi charia dafa ne demal nga jiital sàcc ga ca médd ma su ko defee nag boo waaye la nga sàcc buñ la jàppee ak jàppuñu la danga ko war a gàddul boromam nga fay ko ko waaye kenn du ko addiile loolu la ñetteel bi wala juróomeel bi bala ñoo dagg sa loxo na nga sàccee ci fu ñu tëj magasin la waa ji am kànnaaram nga ñëw dajji ko dugg ca biir xenu bagaas ya sàcc génn ci la ñuy door a dagg sa loxo bi moo tax dagg loxo gaawut tey fu mel ni boo duggoon ci magasin ab jàmbur carrément muy bëccëg nga dem gàddu marchandise ya jël def ko ci sa mbuus wala ci sab saak gaa yi ñëw fekk la ca biir ba maanaam kii ba biir magasin ba génn ko kenn dagg sa loxo bi da war a génn ba pare waaye boo génn ko kenn du dagg sa loxo bi ñeen nga ne na fekk muy bëccëg mais buy guddi kay lëndëmoo gi nga lëndëmoo lëndëm gi rek lëndëm gi magasin la gaa yëpp wane nañ gannaaw dajj gi nga ko dàjj bu ñu la ca jàppee ci biir noonu donte maanaam dañ laa fekk ci li nga sàcc nga téye ko génn góor tamit dañ dagg sa loxo bi waaye tamit ci ngay déggee même buy jàkka yi laaj nañ imaamu saafi waaye ku sàcc kaamil nag mu ne su fekkee dafa sàccee kaamil ba ca biir jàkka ja génn nag moom ci biti jàkka ji te buñ jëlee jàkka ja buñ jëlee maanaam kaamil ba xayma ga mu mat rubu dinaar dañuy dagg loxo ba waaye bu manqué rubu dinaar nag dañ koy yar rek yar yi yoon rek naka noonu yéen ñiy sàcc dàll yi bàyyi leen ko waaye tamit boo bëggee sàcc bi ñu dagg ñu dagg loxo ba ci sa dàll yi dee dugal dàll yi ci biir jàkka ji mais bu fekkee da ngaa sumi dàll yi ci biti jàkka ja nit ñëw sàcc ko bu ñu ko jàppee kenn du dagg loxoom danañ ko yar nag ci lim def noonu xanaa muy sàcc guddi buy guddi na nga lëndamoo lëndam gi ci timis gi wala gexe gi nit ñi julli bàyyi seen jàkk seen dàll yi ca biti nga sàcc ko buñ seetee li nga ramassé waa ji peerab dàllam bi cinquante mille ki soixante mille mu mat bu bon dinaa da ngi dagg sa loxo bi ndax lëndam gi rek maa nga seen la xuus gi nga ko xuus noonu ma dem foofa di ko sàcc loolu ci la bokk ñi sàcc ci càngaay ci lañ leen yéegal boo ñëwee fekk néew bi dee ñu suul ko daal bi ko sàng ko nga ñëw sulli ko buñ la fekkoon ci biir ngay ngay jël sàngaay ga waaye génnee goo ko ci biir bàmmeel bi kenn dagg sa loxo dafa yaa ngi ci biir magasin bi xanaa nga xëtt lëndëm gi defee ko guddi kon donte génnee goo ko dañ dagg sa loxo bi waaye su fekkee bëccëg la te génnee goo ko ci biir armeel bi ci biir maanaam kii bi eh, bàmmeel bi kenn du dagg sa loxo su fekkee génne nga ko nag madru bon dinaa dañ dagg sa loxo bu ko manqué dañ la yar lu taasir lañ koy tuddee ci fiq mooy def loo xam ne loi amul ci benn atte imaam xaakim bi mooy seet rek sa caay-caay gi ak sa mbon gi lim méngoo mu teg la ko moo xam ñaar fukki yar lay caw moo xam da lay toroxal ci mbooloo moo xam da lay dugal kaso ñetti fan mbaa juróomi fan mooy bépp caay-caay xam ne loi addugul ci ne lii lañ war a def danañ xam comme tey nit ku sëy ak mala dem sëy xar mbaa mu sëy ak bëy yonent bi waxu ci dara ni nangam lañ ko war a caw xaakim bi muy àttekat bi mooy seet lu tolloog caay-caay googu mu teg ko ñaari jigéen ñu ne ñu ngay sëy nekk seen fi caaxaan ñu koy tuddee sixaaq sariya waxut ci yari yoon yi ñu leen war a caw su boobaa imaam àttekat bi mooy seet kem seen caay-caay googa mu teg leen ko yore cigarette ci mbedd mi di mëy mëyi rombu nit ñi ñaaw googa dañ la dañu ñu dóor la ko boo demee Maroc ko def dañ lay dóor na ci weeru koor yooyu yëpp kon am nañu fi caay-caay yoo xam ne ci lañ dugal sax wàccee tuba yii yëpp yooyu yëpp nga def ko ci ma dañoo war a atte ci li nga def amul luwaa bu ca addu ñu seet lu tolloog sa mbon gi ak li mën a yàq jël ci atte teg la ko kon yooyu yëpp dana ci am kon bala ñoo dagg sa loxo bi yëpp dana am waaye ti bala ñoo dagg sa loxo bi wax naa la ngaa war a xiif na fekk xiifoo moo tax Seydina Omar bu musaana jël gouverneur am yi yóbbu leen ci euh, place yi ñuy liggéey dafa daan wax ne ku ma fi indil ab sàcc bala maa dagg loxoom te yow moomu yaa ko waroon a wutal liggéey mu am xëy wutaloo ko liggéey ba mu ñàkk lu mu lekk dem di sàcc yow laay dagg sa loxo bi moo tax tey ci ci sariya bi ñu ko doon atte bala ñoo dagg loxol sàcc yu bari kilifa yi lañ war a njëkk dagg seen loxo ya ndax nit ki bu ñàkkee liggéey te yaa ko waroon a utal liggéey war koo jàppale war koo teete ba mu mën a am fu muy jàpp mi ngi bàyyi nday bàyyi bàyyi amul mel ni pexe mën naa dugg ci caay-caay goo xam ne mën naa am sax du jikkoom ñàkk pexe rek moo ko ca dugal loolu la daan Omar daan wax yéen njiit yi ma jël teg leen ci kanam nit ñi ngeen tedd képp ku lang ci yéen tedd ku leen jege tedd ngeen bàyyi ñeneen ñi xam ne bokkuñu yéen dara di torox balaa lu ngeen lu mën a am ci seen kaw bala maa leen teg benn atte yéen laa laa koy njëkk a teg loolu nag mooy sariya ñi bàyyi ci xel kon sàcc ngoog lu yaatoo yaatoo yaatu la luñ ci wax tamit lu bëree bëri la moo tax sama borom ne wasaariqu sàcc bu góor bi wasaariqatu ak sàcc bu jigéen bi faqta'u na ngeen dog aydiyahuma seen ñaari loxo ya muy ndeyjoor ya jasa an muy ak fay bi maa kasabaa ci liñ fàggu nakaalan ngir ak mbugal mi ne laay gu baxee koo ci yàlla wallaahu yàlla asun ku not la ci nguuram xakimun ku xereña la fa man taaba képp ku tuub min baxdi zulmihi gannaaw ak tooñam wa aslaha mu yewenal jëfam fa inna laa naka yàlla yatubu dana nangu tuub alay ci moom inna laaha naka yàlla xafoorun jéggalaa kon la rahimun ku bëri yërmande la sàcc rek la imaamu Maalik wax ne boo ko tuubee du ko dugal ci jawaabir yi mooy euh, ma manta manta manta jàng maanaam damm-damab li nga def ban jëkkati pen bi teg ko ci sa loxo lu dul da nga delloo càcc ga ki nga ko jëlee woon ci moom ñu jàllar bi ko timit nga baxalu ko àq bam ne la baxal naa la saafee yu nag moom dafa ne bu dee ak sàcc la sax buñ xasee dagg sa loxo bi kenn du la fayee kooti kenn du la fayeekooti li nga sàccoon Malik nag dafa ne li nga sàccoon su fekkee ne borom koom-koom nga borom man-man nga dañ la koy topp ba pare doon doonte dagg nañ sa loxo bi sàccoon nga ñaar fukki junne te yow am nga dara dagg nañ sa loxo bi en même temps nag dana danga nga delloo ñaar fukki junne waaye su fekkoon ne danga ngaa sàcc ñaar fukki junne avant ñi la yóbbu ci juge bi foofa nga ne delloo naa ko kenn du dagg sa loxo bi ndax bépp atte bu yeggagul ci loxol yoon mën nañ koo arranger. waaye bu xasee yegg ci loxol yoon kenn mënatul koo arrangé te dañuy bàyyi yoon def liggéeyam moo tax gaa yi léeg-léeg boo ne problème dem police ñetti fan ya nga fay def foofa mën nañoo arrangé seen mbir mu fekk mbir ma yeggagul ci tribunal ba ca siis ba man naa maanaam commissaire ma na laa woo ne lu ngeen jotee ñu ne nangam mu ne tee ngaa jël jéem ko koo delloo nga jëf loolu mu ne dama koo gaañoon mu ne tee ngaa jéem a jël ordonnance yi nga jéem koo fay te nga dàmpee nangam boo dee d'accord naa foofu la ñuy classé dossier soo bañee nag ba dossier ba xas yéeg ci loxol siis foog dañ koy àtte loolu tamit la sariya wax bu bu affaire bi xasee yegg ci loxol siis rek dafa ne bàyyi leen ko mu àtte wax nag mooy siis yoo xam ne yu maandu lañ foofa duñ fa jox dëgg kenn te fekk xamoo dëgg duñ fa xeeñ dëgg kenn fekk yaa ngi yor dëgg waaye bu yàlla nattoo am réew mu dem ba xegg ci ñeent xóolootuñ ñeent àdduna bu tukki la bu yàlla dogalee tey réew dem ba toll ci ñi am problème ñu war leen a atte wóolatuñ seen justice ya àdduna bi tukki na bu demee tey ba réew toll ci maanaam jamono joo xam ne malade ya wóolatuñ seen médecin ya mën nañ caa dugal nangam yaa ngi gis ñoo xam ne li leen pikiir yi ñu xéegee ñu daanoo ca troisième étage ñuy tëb ay miir loolu lépp lu ko waral malade yu xóolawut seen i médecin bu malade xóolawutul médecin àdduna bu tukki la waaye bu demee ba nga xam ne tamit réew toll na ci population ba wegetuñ seen i njiit yi ragalatuñ leen ragalutoo takk der ragalutoo ragalutuloo am ministre weddatuloo ko sax faalihuloo ko àdduna bu tukki la waaye bu bu jamono demee ba toll foo xam ne ñu réer ñi bëgg ko leen xamal seen diine nawlootuñ seen boromi xam-xam ya àdduna bu tukki la te ñeent yi yëpp yaakaar naa yegg nañ ci ndax dañoo bëri foo dey buur foo buur nag moo gën a xées mooy lu neex buur rek ngay wax boo demee lu xew rek nga addu ca ñu tooyal sa poos def leen nangam nangam mais yàlla taxul sax nga koy wax bu jamono demee bañ bëri ay fóodey buur loolu musiba la sëñ Abdul Aziz dafa daan wax ne yàlla nañu yàlla musal ci fóodey buur fóodey buur nag buñ ko bëri lee rek su boobaa ña fa réer bëgg xam fu ñu teg seen tànk yi dootuñu wóolatu seen borom xam-xam ya njuumte bu xasee bëri ci médecin yi seen i malade dootuñu leen xoolooti ay njuumte bu xasee bëri ci àtte su boobaa tamit ñi am dossier dootuñu xoolooti seen sis ba waaye tamit njiit bu nekkul ku sàmm ku weguhu ku dëgg ku ragal yàlla ku maandu. ah population bu dootuñ ko wegati ñeenti yi nag bu fa ñeenti yi heggee rek foofa dund fa maanaam dee fa sax moo gën dund te foofa yaakaar naa hegg nañ fa kon sàcc ngóog bana loola fii la Malick ne ak sàcc rek mooy loo xam ne buñ la tegoon nangoon na ni waxoon naa leen Malick nee na xuddoo di jawaabir la mais da caa génnee sàcc mu ne sàcc comme xàq jàmbur dafa ca aju boo sàccee balay laa buñ la tegoon pen bi tamit te fekk am nga dangaa war a delloo li nga sàccoon sàcc ka su fekkee tegaguñ la pen bi tamit jëlal li nga sàccoon nga delloo ko borom ndax loolu yoonu yàlla nekkul ca tooñoo yàlla sa moromam nit nga tooñ su boobaa nag sa moromam nit bu la jéggalee rek yàlla jéggal la bu la sa moromam nit ni jéggalul nag yàlla balaa ak moom bu ëllëgee sa lu baax li dañ koy fay a ngi jël lu borom la këppal la ko moo tax mu indi fa man taaba min ba'di zulmihi wa aslaha kon loolu loolu mënut a mën a jëfe ñàkk dégg nga léegi mu ne alam taalam xanaa xamuloo ne ana laa naka yàlla lahu aji nekk la ñeel ko mulku samaati nguuru juróom-ñaari asamaan wal arde nguuru juróom-ñaari suuf yoo asibu mooy mbugal ma ne saaw ko ko soob am mbugalam ca xéeféer ya wa yaxfuru mooy jéggal li ma ne saaw ñeel ko ko soob ak njéggalam ca jullit ña wallaahu yàlla xadirun aji la alaa kulli seen ci lépp lëf aaya yooyu bàyyi na ko mu ngi dugg nag ci yaay wàllis na amanu laa yox sin ka lasina yusaariuuna fil kufri yahud yi moo ko tax a wàcc mi ngi wàcc waa xaybar xaybar soriwul madinatul munawara ñaari kilifa ñoo fa njaalo ñu tedd te xam nga yahudi dañoo bonoon atte bu ñu yëkkati muy loi rek bu naree dal seeni kilifa ya rek ñu teggi ko mooy li xew rek moom daal boo nattee rëdd yoon yi mu dara dal ci sa kër wala mu nar a dugg sa néeg wala mu nar a dugg ci néegu ku takkoog yow rek nga teggi ko ñoom nag bu fa baadoo la njaaloo sangewoo gut ñu dóor ko téeméeri yar bu sangewoo ñu ray ko bu fekkee kilifaa ko def borom ndomba tànk borom juddu bu rëy ñu ne ah lii daal yàlla waxu ci dara ñu watewaat luwaaya wëlbatiku ko benn ñu caw ko wala ñu xas ko wala ñuy ñuuleel xar-xaramam ba ak këriñ bàyyi ko mu dem waaye àtte bi ci yàlla wax duñ ko def ñaar nag njaaloo ñu tedd ci xaybar ba ñu njaaloo ñoom ñu def délégation ni leen dem leen ki suñ mbokki yahuud ya nekk Madina ji Banu Qurayza ngeen dem ñi leen ñi demal ñu ci yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu laaj ko lii lan la ci sariya wax ñoom xóor na leen pé nga ne tawreet li mu ci wax mooy dañ ko war a rey ndax sangewu na ñu def délégation wa Banu Qurayza ban Banu Qurayza te ñëw waaye ba ngi ñëw dañoo waxoon ne leen lu leen yonentu bi wax lu dul lañ ko war a dóor ay yar ñuulal xarxaramam ba bu leen ko jël loolu même sax loolu moo nekk ci tawreet ñu wax leen loolu te fekk dañuy kàcc ah gaa yi ñëw ba ñëwee ci yonantu bi yonantu bi ne leen li ci sariya wax de mooy ñoom ñaar dañ leen a war a rey te lii ma wax leen mu nekk sama téere bi ci alquran moo nekk ci tawreet dem leen ngeen indil ma ñaar ñu dàq jàng tawreet ci yéen mu firndeel lii ñu dem indi ñaari doom yi ibnu suuriya ya suuriya ku mënoon a jàng la amoon na ñaari doom yoo xam ne ñu mën tawreet lañ ba ngi ñëwee yonantu bi gëjal leen gëñ koo xam ne mënuñoo fen ne leen leen di gëñal ci yàlla mi leen xaral géej gi seen maam ya jaar ca may man mën na salwaa ba ñu jamono ja ñuy xiif may leen nangam ak nangam ndax nekkul ci tawreet ku njaaloo gannaaw bi nga sangee ko waruñ laa jam ay xeer ba nga dee ibnu suuriya ne ko neexul ba neexul mais loolu moo ci nekk de nitam ja dal ci kawam ne ko gàccaal nga ñu lu tax mu ne dafa maa wóorul ne su ma fenee tamit yàlla weer ma kon kii mënu maa taxaw ci kanamam di fen léegi nag mu ne leen indi leen tawreet ñu indi tawreet mu ne jàng leen ñi ñuy jàng gaay yi ne ko déere na ngeen di tawreet ñu jàng ñu indi tawreet di jàng di jàng bañ war a yegg si ca ca jooja rek xam waaju kàccoor jël loxoom teg ko fa Abdullah ibnu Salaam dafa tuub jullit la te mën na tawreet mu ne ko teggil fi nga teg sa loxo bi bañ ba mu teggee loxo ba rek ñu xool ko loola la fa nekkoon mooy ku njaalo koo xam ne góor la wala jigéen la sangee na nañ ko jam xeer ba mu dee gaa yi am gàcce nag léegi nag ñoom nag lañ doon wax gaa yooya ñëwoon wax leen ne leen euh, bu bu leen yonantu bi waxee lu dul nañ ko dóor ay yar dafa leen wax nañ ko rey ci ay xeer bu leen ko jël ñoom yahutu banu Qurayza tey wax na la banu waa waa Xaybar loolu la yàlla nett di sii nii waaye gis nga li mu leen xasee mooy ga njëkkalante ci lu bon yusaari'uuna fil xayraat wutee nañoo saxaaba yi saxaaba yi lu mu waxoon saari'u ila maxfirati min rabbikum ak yusaari'uuna fil xayraati waaye ñoo ne yusaari'uuna fil xay fil kufri ñoom lañ nekk xam nga kon njëkkalante ci kéeféer ñii ñoom dañ njëkkalante ci lu baax ñii dawuñ seeni morom moo tax mu ne yaa ayyuha lazina yéen ga yaa ayyuha rasulu yee yow yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam laa yox seen ko bu mu jàqaloo la lazina ñi nga xam ne yu saari woon dañu njëkkalante fil kufri ci tàbb ci kee kéeféer mi la seen ci ñi xam ne xaaloo wax nañ ne ama naa ñun de gëm nañ fekk dañ ko wax rek bi afwaayam seen i gémmañ waaye fekk walam tuumin maanaam gëmut boom seen xol ya wa min lasina ak ña nga xam ne aadoo wax nañ ne ay yahood lañ nekk ñoo xam ne ñoom de sammaawuna déggale haa kon lañ lil kadi bi ci fen fen rek lañ men sammaawuna déggale haa kon lañ ko li xaw men ñeel nit aaxira na ngeen ñu ko déggalee mooy nitu Xaybar ya banu Qurayza ñoo moom maanaam sammaawuna lil kadi bi sammaawuna li xayri aaxiri na yooja nag banu Xaybar ñoo ko moom ñoom ñooy ñi nga xam lam yaatoo ko dikkaluñ la di waa Xaybar yu xarifuna di jàngal kalima baadiya an muy xattaya min baadi mawaadi gën a placé ko yàlla tëral yaqulu na ñoom ña ngi leen di wax ñoom banu Quraysata ña ngay wax bani banu Xaybar ne leen in utitum ndeem joxeef na leen haasa lii ñu jengal fa xuzuhu na ngeen ko jàpp way lam tuutuhu ndeem joxuñ leen li ñu jengal faxzuruhu na ngeen ko bàyyi bu ñu leen waxee daal dóor ay yar jël leen bu ñu leen waxee jam leen yàlla ne wa ma yuriku namulaahu yàlla ay fitnatoo ak sànkam sànkoom falan tam li ko moom ti loolu la woo jël ko mi ne laay ci yàlla say an dara ulaayka yooye gaay la si ne mooy ña nga xam ne lam yurid namullaahu yàlla an yu tahira mu ba mu seen xol ya lawum dal na seen ko fi duniyaa ci àdduna xis yun gàcca muñ laal leen galag ak toroxal leen waluhum seen ko fi axira ci àllaaxira azaabun mbugal moo xam ne mu màggal te muy dugg safara kon gis nga yahood yi li ñu wax seen morom yi yahood yi te nekk ñu bon rek yéen a ñëw nen nañ ànd ak yéen dem ci yonantu ba bala ñoo dem dañ leen wax lu leer xatte bu mu leen jox bu dul dóor bu leen ko jël bu leen joxee dóor nag jël leen ko waaye jël ñaari kilifa yoo di leen rey du fi xamee bu leen ko nangu du door a dem ci yonent bi yonent bi ne leen ñi ray rek la ci yàlla wax moo nekk sama téere bi ray rek la ci yàlla wax moo nekk ci tawreet ñu dem seeti ko la yonent bi wax tamit dëppoog loolu ndax moom sax mënut a jàng boo bindee sax du ko liir waaye dafa ne nag kenn liir rek ñi may may may may dégg waaye saay-saay la dem ba topp ba ba tiim ko rek jël loxo ya teg ko ci Abdullah ibnu Salaam ne ko fi nga teg sa loxo yi nag nga xam ne saay-saay ak sew yàgg na fi ñi ne ko ñu dindi ko rek fekk loola moo ca nekk yàllaa ngi continuer di leen xas xas na leen xas yu bon ne yahud fen rek lañ man ak déggale ay fen siiwal ko buñ déggee dara ci dëkk bi rek réseaux sociaux yi publier ko ñi xëy annoncé ko ci journaux yi rajo yi jël ko def ko revue de presse taxal fitna daal yahud yi ñoo ci man ñépp fu ñu fekk safara wuy takk rek nañ koy gën a xam ko mu ne nag tamit ñaareel bi dafa bokk ci seen ak ngon lekk nger seen biir yu rëy yi tiim leen lépp nger la feesee muy as suxtu xam nga suxtu moo doon firi faagaagal maanaam lekk nger ni muy faagaagalee jëf ju baax ji nga amoon ci say julliya ci say xoor moo tax ñu jël baat bi tuddee ko suxtu dana jël danañ koy wax xaj xaj bu xiif danañ koy wax maanaam baat boobu ba tax na tey lekkkatu nger yépp ci sariya dañ leen xoolee ñuy xaj xaj boo xam ne dañoo meeyaay xaj bu xiif xam nga jooju ko rek bu ci benn atte nekkutoon jar na ba te mu bari ñi ñi nger la nga ne a ah, lii de mooy dëgg waaye comme jox nga ma doo millions trois millions danaa ba ci dëgg ja ki ko moomoon ma xañ ko ko yow mi ko moomutoon ma jox la ko cey boo dekkee sa kanam borom cey buñ la takkee dugal la ci sa biir bàmmeel wala gannaaw danga xam ne yàlla jaamu la jaamu la santaane woon sa jëf jooju dafa bon ba yàlla na yonantu bi nee na yàlla rëbb na la yemut ca mu ne ki dox commission bi sax ne ko mën naa laa dimbale dem ci diw moo xam ku mën a tudd su ma ko demee mën naa wëlbati mbir yi sax kooku yàlla rëbb na ko laana allahu rashi wal murtashi wa rais rais nag mooy ki dox commission bi fii nag loo fi gis mu sotti am na ko dox commission bi moo fi bëri mën naa dox commission bi jox ma deux cent mille léegi tey ma labaj carte gi mbir mi mel ni duhutoon loola waaye nag yow mal xayaam la lépp yu leeree tax ku loolu boobu jar naa baxi xel waaye eh, bu ñu la bisa ngi ci bis yi boo ko waxee xale tabaski rek la xelam bi daj waaye wallahi bis ngi si bis yi bu ko yàlla waxee yow nga am xel sa sa sa sa bis bi mu lay war a xel rek mooy bisab dekki ba ak bisab dee bi ci sa kanam sa borom nañ rafetal mbir yi nañ bàyyi caay-caay gi nañ bàyyi complot gi nañ bàyyi mbon gi nañ bàyyi xeet yu bon yu ñuy def te loola lépp dana nekk lu lu xaat ci kaw yow mi nga xam ne yaa yaa yaa tëral plan yu bon yooyu yëpp xamul ah, kenn ko def loolu rëcc jëf gi maanaam jëf du mooy borom maanaam moom ak ndombaa xem yaa ko natt ci sa bopp yaa koy takk mook sa ceinture bii tamit ñoo xem ba nga koy jënd yaa ko jënd ceinture bii moom a jot moom laay takk li nga def ci lu bon tamit dana la wër ndomb comme ni la sa ceinture bi la wëree ndomb xamul dara loo ci mën a rëcc kon nag ñoom jikko yu bon yëpp tey li ngi fees suñu penc mi lekk nger fen rek fen rek ku la gën a rëy dara laa kàcc ku la gën a rafet costume karwaatu taxaw ci télé bi mbaa mu nekk ci yaram yi ci bari bari kàcc rek rusoo ci dara rusoo ne sax man sama fen yi sama doom yi xam nañ ne man damay fen même sama soxna yi sax xam nañ ko sama mbokk yi xam nañ ko te xam nga fen yi gën a bon ci fen yi mooy fen woo xam ne yow mii fen xam nga ne da ngay fen sa doom yi xam ne dangay ngay kàcc sa jabar yi xam ko sa mbokk yi xam ko lu baaxut dara jëru ko ci kaw suuf jërë bayu ko sañ ci bàyyi xel moom lay alquran di wax si nii mu ne sàmmaauna ñoom de déggale xaa kon lañ lil kasi bi ci fen ak kaalu na kon lañ li suxti ci nger fa in bu ñu la dikkalee faxkum na nga xatte baynahum seen diggante aw ixrif wala nga dumoo yoo xam ne walis leen waaye loolu mooy kufaare waaye ahlu simma wala yowut ak nasaraan bu ñëwee ceew da nga leen war a xatte ko folli ci na nga xatte seen diggante wa in turid boo dumoo yoo xam ne walis leen fa lan yadduruka mënuñ laa lor say an dara mënuñ laa lor dara seen kàddu yu bon ya wa in xakamta boo xattee na nga xatte bayn ndig seen diggante bil xisti ci maandu inna laa naka yàlla yuxibu dana mu yool muqsitin way maandu ña waaye wa kayfa yuxakimunaka nekk la fa ñoom tawreetu tawreet fiihaa nekk na ci tawreet xukkumu laay xatte bi yàlla ba ta mooy jam nga su ma yettawal topp ñu dëddu min basal gannaaw loolu wa maa ulaayka dir yooyee gaay bi mu ngi way gëm gëmuñ dara buñ gëmoon dara danañ nangu li tawreet xatte waaye mbona tax maanaam ñu ñu nangu loola kon nag teg leen foofu seen baaraam bu ñu fi yàlla indiwaatee suñ bopp dar su mooy inna anzalna tawrata fiha hudan wa nuur su ko defee nag suba ci waxtu wi loolu mooy nekk suñ bopp dar su yàlla ñu ci yàlla yóbbu su ko defee ñu ngi sant bu